yoon wi du ñaari baat du ñetti baat genn kàddu la mooy kàddug sëriñ bi kon kàddug sëriñ bi boo gii rek mooy li nga xam ne ñun ñëpp cëriñ tënk ko kon bu ñu àggee ci bis na nga teewal ma fa te jot li ma kàddu yu ak cant ak i ñaax jëme ko ci mbokki taalibe yi sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp ki gërëm mbokki taalibe yi yëpp di sant di leen gërëm ci liggéey bi nga xam ne yàlla def na muy liggéeyu Serigne Touba suñ borom di def muy dox ba agsi ci loxoom bi mu agsee ci loxoom itam mu fës ko yéene ànd ak yéen ndax ni mu koy waxee rek lépp lu mu yéene boppam la leen yéene waxtu ne mu di ko jotale ci lam ñam mu ne nag ci jariñu goog yi nag ak ni jariñoo ci Serigne Touba nag loolu rek la yéene taalibe yi mu fàttali ma it ne naa leen wax ne yaar rek a ko fi bàyyi. mooy wattu ak sàmm la ma waxoon ci màggal Tuubaa daaw jig nee na ngi koy fott fàttali ñëpp nee na yaa rek ko fi bàyyi wattu ak sàmm wattu li nga xam ne sëriñ bi bàyyi na ko fi bàyyi na ko fi ak sàmm ko ba mu bañ ruur bañ a réer loolu rek mooy la ko fi bàyyi kon nag liggéey bii nga xam ne yàlla def na mu seq ko yéen te muy boroom liggéey bi mm-hmm. nee na leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal itam ci barkeb Serigne Touba mi nga xam ni li ngeen di sàkku ci moom lépp jëmam a tax yàlla na Serigne Touba gàttandu leen ci liggéey bi defal leen ci ndimbal defal leen ci tawféex ba fañ ko bëgg a ñu àgg fa ndax liggéey bii kat day liggéey boo ñor kon nee na mu xamal leen ne leen bëgg na yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci liggéey bii ngeen gën a góorgóorluwaat gën a fabuwaat gën a laxasaaywaat te xam nga am ngeen sasu rëy mooy lii ñu leen dénk te ki ne ci bopp ba di sëriñ Abdul Ahad Ka moom ñi nga xam ne yàlla def na mu ne woon fii te ko fi tegoo nit ñëpp xam nañ ko bi yàlla def tànnee fi jub siwaat itam sëriñ Sidi moom dafa waxoon ne day diglu ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax amutu bëgg amutu bañ amul lu muy ñoddi amul lu muy jañ lu ci sëriñ bi santaane daal ñu def ko bu nee nañ ko wéyal ñu wéyal ko bu nee nañ tànn keneen ñu tànn keneen leneen lu mu ko waxee nam ko ko waxee noonu la koy wéyale mm-hmm. ba yàlla def ba demee ba jege sëriñ bi yónni doomam sëriñ Moussa Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir yónni ko ci sëriñ Sidi mu fekk ko ca Darou Salaam bukki barka jottali ko li ko sëriñ bi yónni ci moom man boobu fekk ne néewuma fi sax xamal ko ne ko nee ko na ko Cheikh Sidi Moustar jëloon lépp jëm ci dëkk bi dénk ko ko mi ngi ko yeesaa di ko fedli di ko santit nag ci li weesu ci liggéeyu dëkk bi nee na xolom sedd na ci rafetlu na ko nee na ngi la ci nee nee na ko daal ko it nee na mi ngi la ndam loo ci amoon nga am ca ndamaat lu ko ëpp loolu mooy kàddu sëriñ bi ba mu amee itam ci la sëriñ Sidi daal di wóolu Abdou Lahad Ka ñi ne kat ndegam yàlla def na liggéey boobu sëriñ bi di wax ci sa loxo la ne woon te yónni na sëriñ Moussa ak cant ci man ak ngërëm te liggéey ba lépp yaa ko def kon amul lu may soppiwaat ndax yàqu fi dara comme yàqu nag lu yàqu di su ko soppi kon wéyee laatal ma liggéey bi daal ko yebal ci man fekk boobu nii mu fi dama génn waaye loolu kon mooy liy sababu ñu tegaat ko fi jataay bi sëriñ Sidi di wax ne ndegam sëriñ bi kat damaa doyloo wóolu ma buñ ma doyloo wóolu ma kat ka wóolu may la may dénkaat kon loolu mooy li indi liggéey bi kon nag moom ak ñum ko àndal ndax ni ngeen koy faral di waxee du du jënni jëmm ab équipe la kon yéen ñi ko seq te xam ne danaa ci ñëwaat tuuti ci kàddu sëriñ bi sëriñ Touba ba muy sanc dëkk bi da ko sancoon am ñu ko àndal yépp mu fekk fu dara nekkut ay rabi àll képp ne fa Serigne Touba gor ko mooy alalam ju ko doomu te suñ borom jox ko ko ñam àndaloon nag moo tax njabootu sëriñ Touba gi fi woon gépp tàmbalee ci bi nga xamee ne ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nekk na fi Serigne Touba te yàlla def li ñu daa tuddee commune Tiraal la xew ci xilaafam na mu ko daan tànne mooy. mbooleem kër doomam Sëriñ Tuubaa yi fenn fu ci ne mu jëlee fa kenn dugal ko ci biir mboolem ñi nga xam ne seen maam yi ñoo àndoon Sëriñ Tuubaa goor dëkk bi mu dugal leen ci biir képp koo xam ne mën na li ca doole ca nga ne ci biir dëkk bi te mën na indi dara ci dëkk bi ci lu baax nag ñu dugal la ci biir waaye loolu mooy li cosaanu liggéey bi lu ci yokk rek da ci yokkuwaat ba yàlla def mu ne fi bu bàyyi ko fi Cheikh Abdoul Khadim ki ñëw yàlla def na ay élection jut ginnaaw bi itam Serigne Saliou Mbacké ñëw ba mu dikkee itam mu wóoyeelaat liggéey bi di ko tànnee noonu nga xam ne mas na ko waxal boppam ci rajo ñëpp yi dégg kon loolu fàtte xaju fi noonu la ko daa tànnee ba mu bàyyi koo fi yàlla def na Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw moom itam tànne ko noonu ba bañ koy def sax yàlla def na ci sama loxo la ko teewoon ma. toppoon ci na ko Serigne Saliou tànne woon rek moo wéyalaat liggéey ba noonu lañ ko wéyalee ba yàlla def ak Cheikh Sidi Moukhtar ñëw moom itam mu wéyalewaat ko na ko kilifaam yooyu defoon ba Cheikh Mouhadou Mountakha Mbacké ñëw moom itam la mu waxoon rek lépp lu ma fekkoon ñu def ko dama ko yokk waaye dama ko wàññi kon loolu mooy mooy li indi liggéey bi kon nag yéen ñi nekk ci biir liggéey bi na ngeen gën a góor góor loolu la sëriñ bi wax neen na ngeen gën a góorgóorlu te yeesalaat seen laxasaay yeesalaat seeni i te xam ne sas wu ngeen am ndax takkilif la waaye du tashrif responsabilité la waaye du daraja àdduna nag dafa yàqu. lu lu lu lu lu yàgg rek seytaan dana ci jéem waaye mbiru Sëriñ Tuubaa seytaan mënu ci dara ndax ku ne ña ngi lay jéem a gis gisloo sa bopp te la jéem a jox xalaat yu bokkute ak li sëriñ bi tëral te xam ne kat. ñëpp dañoo laxasaay woon fekk Serigne Touba te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na Serigne nee na Touba ku fi sam xel indiwul saw xel dina def kon yooyu rek fi ñëw ñi fi seenam xel indi ak ñi fi seenoo indi waaye la Serigne bi waxoon rek Cheikh Mamadou Mountakha nee na mi ngi koy fàttaliwaat ñëpp mooy ñi am taw dëkk ci dëkk bi nañ xam ne ñoo am taw féexe dëkk ci dëkk bi di taw féexe ju leen suñu borom defal kon nag. dëkk yi ñu dëkk ak Sëriñ Tuubaa nag ñaanam na leen doy sëkk tawféex ak ndimbal buñ jéem a sàkku leneen loolu ngërëmu Sëriñ Tuubaa ndax nee na Sëriñ Tuubaa fàggu na lépp te lim fàggu ñi dëkk ci dëkk bi tax mu fàggu ko kon lépp lu sëriñ bi fàggoon mu jëm si dëkk bi du leen weesu kon sëriñ bi nee na mi ngi fàttali bokk taalibe yi ñu gën a xam ni ñu war a nekkee sëriñ bi ak waruma ji ngeen a jox war a jox sëriñ bi ndax sëriñ Cheikh Mbacke Serigne Abdou Latif wax na ko daanaka kàddoo yi ma ne soon naa jox sous-préfet sax mu def li mu war a def ci wàllu ni mu war a tërali liggéey bi waaye daanaka li mu ci waroon a soññee li ne woon ci sama xalaat ak lépp ci war la doon waaye ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba ñoom it xame nañ ko am Serigne Xamsatu Mbàkke mi Cheikh Abdoul Ahad agsi na léegi ne dama doon agsi ngir seere ngir xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa moo ko fi indi waaye daan na doon ñaan dem waaye ñaan ko moto ba liggéey bi jeex Cheikh Mouhamadou Mbacké Cheikh Abdou Lahad xam ngeen ne ñoo ànd ñëw maa ngi moom ci ndigalu sëriñ bi ak ci ndigalu sëriñ Sidi ànd ak sëriñ Koso Mbacké mi nga xam ne mooy taawub Cheikh Mouhamadou Mountakha mooy itam sëriñ bi jox ko ndigal moo ko Sëriñ Cheikh Abdou Latif démb itam mu wax ma kàddu yu pësif moom suñ koso ne ma kat ndigal li la sëñ bi jox kat dañu koy ànd ak yow fépp foo taxaw rek mu taxaw ci ginnaaw te loolee itam ndigal la ci am ndigal la ci amoon démb ndigal la ci waaye mi ngi koy jëfee it nag ndax lépp lu nekk rek bu ñu waxee mu ne amuñ ci xalaat loo ci dogal rek ñu topp ci ginnaaw loolu te waxu ko yam ci waaye da koy jëf kon ñu ngi sant ñëpp di soññaat nit ñi rek waa dëkk bi noonu ko sëriñ bi waxee ndax nee na ma loo ci gën a dolli kat mm-hmm. doyut mm-hmm. kon nag ngeen di suñu mbokki taalibe bi ñu war a waxtaan ak yéen waxtaan wi du gudd daanaka mooy li suñu Cheikh doon fàttali léegi rek ndax jamono dafa yàqu li baax lépp dafa sotti bi mat li waaye li bon lépp dafa sotti bi mat yàlla defa ñu tawféex nag Sëriñ tubaa rawale lañu ci dëkk bi te waxaloon na boppam ne dox na ab diir àdduna sépp dana dana defuk daay tàkk ku ci bëgg mucc demal ci sama dëkk bi ci Touba mm-hmm. te lii weesu lépp wane na ko lii fi mujj xew mu wér di yee am bu yàggatu xam ngeen ni ci tawféex ji suñ ko am defal ak li coow li bari bari Touba daanaka yëguñ ne dara xew na fi dunduñ ko doxewuñ ko te wàññiwu leen dara kon xam ngeen ne Sëñ Touba am na lu mu beral waa Touba yàlla def na itam dëkk bi Serigne tubaa def na ci tawféex ju rëy néew na nga gis nit ku tumuraanke ba amul lum lekk ngir xiif te xam ngeen ne ñu ñu néew doole ñu tumuraanke bari nañ xam ngeen lu ko indi mooy solidarité bi am ci biir dëkk bi te loolu Serigne Touba fàggut ñu ko. kër goo dugg bu la waxtu jot jot jot lekk jotee boo duggee mën ngaa lekk te ñu bañ a xam fa nga dëkk loolu ñu Serigne Touba defal nag dañu koy defee ci lépp kon nag rikk ñun ñi am tawféex loolu nañ gën a góorgóorlu bu baax ci bañ a fexe ba dafa bari yu jug ci àdduna di yàq te seen yàq sax mënta am njëriñ ndax yàlla suñu borom noppi na ci lépp ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa xam ngeen ne mooy yonent bi bi tax ñu bind ñëpp moo gën a tedd ci nit ñi mm-hmm. waaye rasulullahi mooy yonent bi gën a kirite gi ci àdduna te ba fi ne lislaam mooy diine ji gën a màgg ci àdduna kon Sëriñ Tuubaa mbiram noonu rek la demee dama naan leen jërut tontonte jërut waxtaane jërut xalaat jërut jaxle ndax yoon ci noonu la juddu ba mu jugee ba nëgë ne ña fi ne woon di ay colonialiste ak ña fi ne woon bokkoon ak sëriñ bi diine ji te fiiraange jàppoon leen ak caddo yam yam ko seqaloon te yéenewuñ ko jàmm pexe yu sam xalaat yu sa xalaat yu sam xel dem jéem nañ ko waaye mënta jeexate ci mbirum Sëñ lu ñu gën a def mbirum Sëñ Tuubaa di gën a jëm kanam passif yi di gën a dëggu taalib yi di gën a gëm mënta am jenn jeexat ci sëriñ bi jamono yi sëriñ bi nekkee xumaag ca Mauritanie nit ñi daan jóge fii tubaab yi di leen gàllankoor addukat di leen doge am na ci am na ci koo xam ne dem nañ ba dagg ab loxoom dagg ab mu jëm ci sëriñ bi waaye yàqu dara ci passifam ba sëriñ bi nekkee xumaag ba mu nekkee ci yéen noonu la demee woon dañ leen daa àddu kalpe di leen dóor di leen génne kër di leen génne ci kër di leen wax wax yu ñaam waaye mës sa am jeexit ci yoon yi ba fii mu ne lu ñu gën a wax mbirum Sëriñ Tuubaa di gën a jëm kanam kon loolu dama naan énergie bi nga war a dajale ci tontonte bi ak xuloo bi di leen diglu fexeel ba jëmee ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa ndax loolu moo li li la ëpp njariñ li ci des amul njariñ mm-hmm. ndax dañoo toll ci jamono yu xoriyatu biir ku ne sañ wax sa xalaat waaye sañ wax sa xalaat googu dëgg la waaye tubaab yi ko indi ndax lislaam nanguwul loolu ëllëg si ne yoom noonu bil xay bi yaa tënk sa bopp wax naa ko bu yàggul na kenn mosu kenn mosu caatik sa bët te ñëpp dañ ko gëm sawara kenn mosu caatik sa bët dañ ko gëm seraat kenn mosu caatik sa bët dañ ko gëm kon yi yi ne demee yëpp bu dee ab yonente itam daa wàcc rek xëy wax le na suñ borom wax na nangam nga gëm ko kon nañ xam ne bu fekkente ne jamono dem na ba tubaab yi bëgg dugalaat nit ci seeni xalaat ngir gëm gëmloo neen ne leen lépp loo xam ne dëppoo sam xel da nga ko war a weddi kon loolu li ngay gëm dafa contradiction ndax mënoo gëm loo xam ne da nga koo tëj ci kumpa ba noppi gëmaat loo xam ne ci xel nga ko bëgg a teg diine dafa dë dëppoot ak xel inna diina mabniyun ala naqli la ala munasabati naqli moo tax Seydina Abubakar dafa waxoon ne at tafakkuru al al ajzu fi l idraaki wal fikru fi zaatillahi israakum saa soo demee ba xam ne yàlla kenn mënu koo xam boobaa xamale kenn gënu lu koo xam mm-hmm. waaye Sëriñ Tuubaa wax na ko ba tàyyi du duma ko ñu xam néew ma ci téere yi mm-hmm. kon ñun nañ dëgër te gëm Sëriñ te bañ a may buntu nag noone Sëriñ ndax yaar dafa am ñii dañoo xamut di wax ñii dañ leen di ndax ñuy wax mm-hmm. ñii dañoo xamul di wax ñii dañ leen di nax ñuy wax mm-hmm. ki nga xam ne noonu Sëñ Tuubaa la di noonu yoon wi lu mu dégg ci yoon wi muy lu bon kooku bu biggee ci say wax war ngaa xoolaat sa bopp mm-hmm. te li ci ëpp loolu la mm-hmm. am na ci ñoo xam ne sag bi yàlla defal Sëñ Tuubaa ci biir dëkki Tuubaa neexu leen kàddu gi nga xam ne moo ne ci Tuubaa mooy génn kàddu neexu leen lu ne danañ ko dégg rek bu sëriñ bi waxee bu sëriñ bi wax loo nit ñu ne sëriñ bi wax ko bu sëriñ bi waxee ci làmmiñam ñu ne sëñ bi kat ay nit fa dem wax loolu fa la fa loolu ñàkk positif la ndax bu sëñ bi waxee ci làmb ñam nga ne sëñ bi dañ ko wax loo mooy la suñ borom waxoon yonent bi ci alxuraan ne ko bokk na ci nafiq yi seeni wax wa minhum allasina yuusuuna annabiyya aw yaquluuna huwa usnun yonent benn nopp la loolu mandarga naafiq la yaxdaru almunafiquuna nag an tunazala alayhim suratun tunabbihum fi ma tunabihum bi ma fi qulubihim suñu borom di wax ci alxuraan ne naafiq yi dañuy tiit lool aw ay wàcc boo xam ne day xibaar li li doon xalaat kon loolu ñëpp ko war a watandiku te xam ne sëriñ bi dëkk bi seq ko kenn moo ko ak njabootam fi ne njabootam gi fi nekk moo tax lépp lu mu yëkkati yërmaande ji mu am ci ñoom bëggul dara dal seen kaw bëggul dara metti ci ñoom waaye nag ay nit booy ànd ak ñoom it da ngay ànd ak ñoom ci dëgg mm-hmm. koonu maal xaqi mahma kallafakumul amr dëgg moom lu mu mën a mett dee ko wax nit ndax képp koy ànd ànd àndal leen ci dëgg. waaye koo àndul ci dëgg yàgg yàgg da ngeen tàggoo. te it boo yilifee aw nit da wax ñu wax dëgg waaye yilif ba noppi bañ leen wax dëgg wala ragale leen wax dëgg loolu moom man xamu ko te la Serigne Saliou Mbacké waxoon jàpp naa ne mooy ci la ñëpp war ko daa waxoon ne li ma xam li ma miin daal mooy ab sëriñ di jiit taalibe topp ci. waaye mbooloo nag mënta jiite kenn nit mënta jiitew yoon mm. ndax ak julli sax lislaam bañ ne ko ba dafa wax ne bu ngeen nekkee ci xare wala ngeen ànd ci tukki bu waxtu julli jotee sax nañ jiital kenn kon njiit mënta ñàkk ci nit mm-hmm. kon nag bu ñu yàlla defalee tawféex ñu am ndimbal am kilifa gu toll ne Cheikh Mamadou Mountakha mm-hmm. mat gi ne ci moom ragal yàlla gi dëddu àdduna gi mm-hmm. yërmaande ju ëpp ji loola ku am kilifa gu mel noonu ñëpp ñu ci ñee li yées ci adduna nag mooy ku ñëpp ñetti ñëwul boppam te loolu gàllankoor la Cheikh Mouhamadou Mountakha nañuy xool ci moom buñ xool ci ñun ñii ndax ñun adduna mënuñoo jàpp adduna mënuñoo jat mënuñoo jum waaye moom mi fi nekk Sëriñ Tuubaa eh, wamaa yantiqu anil hawaa te moo doon du waxe bakkan yi tënku ne sama digg ak tubaab yi kenn doyu ma ci sama digg ñoom hmm. ndax ku dul man mën nañ la xëpp wala ñu xëpp la hmm. man nag mënuñu suma xëpp mënuñu su ko xëpp moom mi fi nekkal Sëriñ Tuubaa kenn mënta xalaat kenn wërta xalaat ne sëriñ bii kat nangama tax wala adduna tax muy wax li muy wax ndax lu ko tënk ci adduna amut ndax moom bu dee daraja moo ko ëpp ñëpp hmm. mooy kilifa ñëpp bu dee koomam àdduna mii saa su xëyee bu weesoo jàmm yàlla li muy def nangu xaalis lay liggéey kon kooku lu muy doyee alal dara te alalam yëpp yëfi Sëriñ Tuubaa ko defal kon nañ xamaat li ñam te war a xool fi ñuy teg suñu tànk te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne murit daa war a mel ne ëkk te bañ a melo war a bañ a mel ne xobu garab waaye lii bëgg a xew ci jamono fu ne nit dafa jóge mais dëkk bi amul kàddu wala amul baat loolu te lay bëgg doon suñ bopp rek la ñuy nax nag ndax Sëñ Tuubaa kenn mënu ko nax Sëñ Tuubaa ba mu fi nekk nag ndax loolu yàgg na ci lislaam am na ñu ne woon ci jege ñooyante bi wuyu ma ne xaw min ko arab munafiqun wa min ahli madinati kon yàgg na fi kenn mënu ko duñ ci lislaam Sëñ Tuubaa bi mu nekkee njariñ ñëpp xam ngeen ne am na ñu fa newoon te nekk nekkaloon fa seen bopp waaye ña fa positif bàyyi woon ba na gën a seeni sëddi ñëpp leen ñee ndax léegi Sëñ Tuubaa defal kenn mënu ko dindi la mu waxoon maam Cheikh Ibrahima rek ci mujj gi ba mu demee ne ko Mbàkke ndax deseeti nañ fi dara fekk si bi di waxtaan nit sëñ bu àggale ko mu ne ko Ibra Fall loo wax nga ne mën ne ko Mbàkke ndax deseeti nañ fi dara mu ne ko Ibra Fall de la ma waxante woon yow ci Mbàkke joo ba na génn loolu dara doyul ci man sama mbir lépp ëllëg la lépp lu ngeen gis ci àdduna dafa mel ne ndab luñ duy ba mu tuuru lay tuuru ca ndab la loola mooy li ñuy di si àdduna waaye la la la ci des lépp ëllëg ko tax ju kon nañ bàyyi xel la sëñ Saliou daa wax nee na sëñ Tuubaa nee woon na saytaane da naago na ci gàkkal ma ci yéen waaye nee na bokk ne ci yi ñu yàqale murid yi saa su sëñ da dajale nit ñi boo wax buñ génnee la ñu njëkk wax mooy sëñ bi li wax kenn mënu ko wala buñ ko mënoon lu mu si wut si kon yii jamono di jaay mooy ay liberté ay démocratie yëpp ñun am na leen lu si démocratie ay xalaat la rek ndaxte boo xooloon Sénégal ñëwate ndax mën nañ ñeenti million yaakaar ma ne ëpp na ko te Sénégal mën na fukki million nangam bi juróom yu tegal kon la ci lépp wëte wuñu ana seen xalaat yum kon loolu forme la rek Touba nag bu fi ay junni junni junni di nekkee kàddug sëriñ bi ak bëgg-bëggam gënal leen seen xalaat ñu bëgg leen jaay seen démocratie bi ne mooy démocratie bi dëpp ak jamono dañ leen kon fii yoon li yoon wi traversé jaar fu ne jamono Cheikh Mouhamadou Moustapha jamono Cheikh Mouhamadou Fadil ba agsi fii tey ci lu ne mu traversé ko saa su xëyee yoon wi di gën a màgg di gën a yàkkali ko loola nañ xam ne mooy suñu njiglaay leneen luñ def kat dañuy nax suñu bopp waaye du ñu jëm fenn te xam na lii am Tuuba àdduna sépp lu yéem képp ku fi dëkkul rek wala ku fi dëkk yéem na la ci àdduna sépp mooy modèle bi nga xam ne yoon murid noonu lay dunde mooy ni ñu laaje ak ni ñu koy investir ci dëkk bi ak ni leen sëñ bi gën la seen lépp loola nag am na ay ay ay force yu bari bari yoo xam ne jug na ngir bëgg jaxas xel nit ñi mënuñ ko nag ndax du am jeexit waaye nag war nañoo xam suñ bopp ñii wax ak nit ñi war nañ leen di wax dëgg te bañ leen a dàkk ci liñ bëgg ndax jamono ji kenn nit ñi léegi dañoo xewal saa soo waxee boo waxee lu dëppoog seen bëgg ñu ne alhamdulilah rabbil alamin boo waxee lu dëppook lañ bëggut wax ja ñu ñu ñu wëlbati wax ja loola nag jàpp naa ne la cee musal ñëpp mooy ne suñu kilifa daa def mooy seet lay dëgg nga wax ko seet dëgg nga nekk ca bañ a seet lu neex nit bañ seet lu naqal nit ndax loolu nit ñi kenn mënta fexe ba am lañ bëgg la daloon nitu yonente yàlla Moussa fii sa jaatumul xasanatu qaalu lana haasihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Muusaa wa ma'ahu loolu rek mooy li fi ne ba nag nit ñi saa soo waxee luñ bëgg ñu sant boo waxee lu lu bokk sa liñ bëgg dégg nag ñu wax ja naqari leen kon nag la am solo mooy seetal la nga gëm nga di ko wax rek la ca histoire mooy atte te xam ne nit ñi kenn mënta jot seen gërëm ridan naasi xaayatun la tudrak kon la sëriñtu Touba waxoon rek fa li ñuy tënk nopp la daa waxoon ne bu leen sonn ci sàkk ngërëmul mbindéef yi ndax kenn mënu ko am te ku ci sonnoon ba am koy du la jëriñ dara kon na ngeen fexe ba góor góorlu ci sàkku ngërëmu yàlla suñu borom bi leen bind bu ngeen ko sàkkoo ba am ko bu leen yàlla suñu borom gërëmee bindee fi dañ leen gërëm te duñ ko sañ a bañ wasalaamaaleykum wa rahmatullahi